sëñ bi tur beeg sax Modou Diop. ah fan nga def fii si Touba. fii di marché gare bi ay jafe-jafe yu bëri am rey di ko reyaat lu métti lu métti rek neexul ñu jooy nañ jooyat si jooy jooyat na boo ko déggee am na loo ko waral la ko waral mooy xol bi neexul waaw loolu daal lañ ci am luñ ci wax fii la ñuy liggéey nag fii la suñu siraanga nekk mais bakkan daa gën lépp lii yoon daal nañ ko seen sëñ bee ko xam na ko wax ñu def waaw loolu daal la ñu ñaan wa salaam. baax na nga def tur bi sant bi. sant bu baax Moustapha Fall la. waaw Moustapha Fall fan nga dëkk. bi fi lañ juddoo fi lañ yaroo. lu ay yoon yoon ni yoon. ñetteelu yoon ray mi ngi nii. waaw gaar bi moom comme mënuñu la wax lépp lu ci ne. fii ay délinquant ngan di woy yi ñoo fi ne du woy yu ndaw sax ndax doo toog deux mois yoo fi déggul rey kon léegi bu rayantee seen biir ba jeex fan lañ jëm ci askan wi lañ jëm ñu ne dul seetaan loolu. léegi nag ñoom délégué de marché bi nañ xam seen bopp jox nañ leen cër ndax boobu ba léegi gis nañ ñi di def ci marché mboxum yi ñu fi def gis nañ ko. ñu ngi comme ñoom ñële. waaw délégué ba marché ji jiite bàyyi Cheikh Jonn waaw. waaw. waaw. waaw booy wax kay da ngay jox baaraamu tuuma boo nee da ngay moom Baye Cheikh Dione mi wax léegi ni buñ génnee woy ci koñ bi ñu ñu feeñ buñ génnee booy mu jeex loolu amut respecté nañ ko lool nag mag du wax ñu koy wedd mais li mu wax tegu ko fen fii kenn dëkku ci koñ bi woy yi kenn dëkku ci koñ bi fii kuy rey dëkku fi koñ bi kuy rey dëkku fii waaw wax nañu lu ñu metti nag liggéey lañu ñun ñii rek dafa metti yaa ngi nii boo guddee taxi boo jël boo ne ko gaar ba mun na déedéet booy wàcc dañ lay woo téléphone yi sa waay tey koor bi koñ bi dansé na ay wuyu ay gaa ay ay délinquant fi ne da ngay teggi fu ne kon ñun li ñuy dund ñun dafa metti kon ñoom bu jëlee marché bi teg ko suñu kaw ba pare bi ci am li ñuy am ñun xool xooluñu li ñuy am xooluñu li ñuy gagné wëlbatiku ba pare ñu ñuy tuumaal li ñu ñun wooy yi ci koñ bi lañ dëkk loolu dafa métti quoi. mu mel ni marché bi jam lu matul trois mois ko teg boobu ba léegi yéen ñi nga xam ne dëkk même. waa boobu jamono bi ñu fi euh, benn boy bi mooy taayee dans trois mois euh, bu ko matee ci la toll woote nañ ci mobilisation bu rëy woo ñëpp woo kilifa yi wax suñ délégué de quartier ànd nag euh, kii dem na ba ci sëñ Muntaxa moom ci doom ci baatu sëñ Muntaxa la déggee mu ni ko marché bi na fa jóge nañ ko toj jox na ci Abdou Lahad Ka ndigal Abdou Ka nag ñoo ngi koy déglu boobu ba léegi dañ ne woon nañ bàyyi ba màggal ba pare boobu ba léegi dégguñu ko waxuñ gisuñu ko bi gisuñu ko ba sëñ bi joxe ndigal ba pare sëñ Bass discours bi mu doon def jàllale na ko ci ba ne gaar ba nañ ci jóg mais nag heure bu ñu waxee ay naafeq jël seen jali suuf ñëw sotti di móol ak di fondement naan ñu ngi ci ñu ngi defar te que loolu taxul jamono ji ñu jël engagement ne dañ ci jëlee garde yi ay fan ñu wax ko ñu commencé gis yenn ci population dagg nañ ko commencé koo jaay loolu est-ce que du ay kilifa wala ay kër yoo xam ne nekk seen ginnaaw ndax du yéen da ngeen a néew doole ci li nga xam moom moo di yuuxu bi ngeen di yuuxu dañ cee néew doole moom ndax ci loolu kër yi ñu koy dagg kër yi dañ ko comme occupation yi fi amoon rek dagg ko miire ko dañuy defal gën a defal gars yi dëkkukaay ndax buñ ko miiree ba mu daj ñoom ña fay dugg dañuy am dañ koy gën a mën a nekk ndax tabax yi tax mën nga ne amul pour mais mais ñi ñu koy def moo gën a ñaaw ñi ngi koy dagg di ko def si kër man am marché leen ko doon def léegi nag sëñ bi joxe na ndigal ñu ngi koy daggaat di ko def si kër te buñ ko daggee dëkkewuñ ko dañuy dañuy miir rek bàyyi gën a am fu mu dëkk waaw ban ngeen teg plan jamono ji bu lii nga xam plan bi ñu teg mooy sëñ Muntaxa lan dégg suñu délégué de carte lan yebal ba ci sëñ Muntaxa mu jàkkaarloo mu mu ni moo dégg ci kàddu sëñ bi mu ni ko marché bi na fi jóge nañ ko toj jox na ci Abdoulaye Wade Abdoulaye Khare jëfewut nag ñun nag murid ndigal li am mooy ñun ndigal li mooy buñ daneen demaat suñ mun ndaxa buñ diggaatee ndigal yi ci moom wallaay bu ñëwee góor góor ngoor la ñuy ah, mel ne liñ wax amoon na amati muy lan muy ñu ne fii dañ fu rey nit ñu wax ne am na mm-hmm. naam si ka ñun fekk ñu fii mm-hmm. léegi nag yow nga xam ne yaa nekk fi responsable xam ne mën mais man yooyu passé nii mm-hmm. fi ma fekk ñu leen diw rey nañ ko mais ma gisuguma benn enquête bu ñu jël ba ñëw ne ma diw ma am nangam la tudd wala béréb sangam la dëkk wala nangam moo tax ñu rey ko keneen dégg ko fi ku dul keneen dégg ko fi loolu lan lu tax maam nit nan lay dee si béréb ñu rey ko ay enquêteur ne fa ñu enquête ba pare kenn mënut a xam lii lan moo ko sos ak kii kan la te kooka ñun ñi fi ne ñu xam fu mu dëkk xam ay ndeyam ak i baayam ba pare te amuñu benn résultat tam ñu ngi dajee ñoom ñuy dox ci mbedd yi di dem ak ñëw ki ñu reyoon bëkk dem ay mbokk amuñu fi xam naa magam xam rakki baayam xam naa ci moom lu bari sax yàgg na dëkk fii daanaka juróom fukki at mais kenn bokkul benn résultat moo tax lu ko reek lu tax ñu rey ko nii lañ ko reek nii la demee nii la da loolu amul man kër bi ma fekkee mu ñëw taxaw gars yi taxaw dañ ko ne demal bañ soxla la en tant que ñun population ñun xamuñu si dara xañ na ñoom xam ne kon suñu déggee sa kàddu li xam moo yoon dëpp liggéeyam. tam ah, xaw ma de loolu de laa gis man benn résultat ku la man ne nangam lii moo tax wala ñu wax ko wala nañ ko waxee woon ne diw dee na moom waxee woon tuñ ci rajo yu ne ki ñu dee ki ñu rey. nangam a tax ñu rey ko léegi nangam na loolu amul. mën nañ leen yéen xam ne yéenay dund fii yéen a gën aussi aussi beneen asaraam na ci. mboolem ñi ñi ci ëpp ci ñoom kenn ku ci ne ñi ci ëpp mën ngaa dem seen kër fii lañu euh, kii bu ñu bu añee dem dem seen ñibbi seen kër. kon fii lieu boo xam dañ ciy doxante bari na fi bari na fi lépp ci jàllatu damaa wax ba sonn waxoon naa ko ak matal kii tam si jaxate ba fi nekk ba jàllatu doore ñëw. ñu rey fii benn nit ci biir kër ñang gii dañ koo fekk ci biir mu réyuñu ko sax waaye dañ koo dàqee gaar bu ndaw mu tëggaayi ba ñëw dugg fii ci genn kër ñu jële ko fi bii waa ñëwee ñëw li ci man ne ma lan moo tax yow nga nekk fii doon responsable ñëpp xam la toujours ñun dañu yeble ci yow sax mais problème day am yow doo ci wax ma ne leen wax ju amul njariñ du ma ko wax ndax man gisagoo fi lenn loo wax benn résultat génn ci ci marché la ku nga xam ne Touba dafa am lu ñu doxe c'est spécial ndax mairie bi nga xam ne moom moo yor doxalinu dëkk bi kooku moom itam ñu ngi ci dox ay jéego ngir bopp léegi rey nañ benn rey fi ñaar mu jëm ñett naa nañ ko wax te dee. waaw loolu am na loolu am moom laay wax mu léegi fii xam nga pour man ngay ñëw di ma wax ne fii dañ koy toj ko moom loolu lu ma ci wax lu tax du ma ci wax mooy man suñ saa yu moo jox marché bi ma ne ñi ñëw fekk moom fi commune commune bii fii la ma fekk. te commune Moussa Diakhaté lañ ko yokkoon dégg nga ba ba doomi sëñ Baara ñëw romb na fi ba heure bii muy fukki at ak juróom-ñaar dégg nga mais maanaam benn résultat boo xam ne nii lu ñu fi mos a lijjanti mu mu leer amut fii ñëw nañ fi préfet ak sous préfet gouverneur ñëpp ñoo dajee fii kero ki fi nekkoon booba jamono mooy waa ji moo moo moo jiitoon commune de bi ba ñu waxee ñoom seen i kàddooy toj yi ba mu pare moo jël kàddu wax ne maanaam sëriñ bi di di jël suñu toj. léegi daar daar lan mooy solution bi lii nga xam ne mooy rey gi dakkul lii daar daar li nga xam mooy solution lan nga xalaat. lan moo lan mooy solution moom moo moo jéem a jéem a jéem a def tout tout toutes les façons ñi fiy daje fii mënuñoo um, ump ñu ump ñu nit ñi ñi fiy daje ump ñu nit ñi ump ñu nit ñi kon nag ñoo xam ne nii dañ leen fi jàpp tey ëllëg ñu gisaat leen jàppaat leen loolu mënut a nekk nit ki da nga koy jàpp kenn gisatu ko mu dee wala mu génn dëkk waaye du du bu fi jógee tey bu suba mu nekk. naam am nañu nam fi nekk woon démb la fi nekkee naam am nañu naan wóoruñu ba xam am fii di dem ci guddi gi mbir mi xaw kon lan lan lan lan a fii fii la ma fii fii la ma la ma la ma la ma euh, fekk dégg nga ma am ku ma war a maye réunion la marché bi doon def mboolem commerçant yi pour ñëpp ci man lañ nekkoon dégg nga ak garde yi ñu ñu réunion ba seize heures ma leen may leen ma damay damay dem ma jële fi taxi bàyyiwuma fii kenn julli jee ñu ñu woo ma ne ma am na ko fi dee waaw. jërëjëf Cheikh Issa Dione laa tudd